والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk bi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi tabaraka wa taala di wattandikuloo suñu bopp di leen wattandikuloo bëtt ay tereem di jëmale suñu xutba tey ci benn tomb muy bari fitna fitna yu bari yuy xew ci mujj jamono nga xam ne xewee su cee mën a mucc waaye tamit ana lan la ñuy def ba fitna yooyu yonent bi sallallahu nu xibaaroon nañu ci seen mujj jamono ay fitna yu bari yu xeetoo dana am fitna yu xëccoo ci wàllu nguur fitna yu wuute ci wàllu ay pas-pas ñenn ñu nekk di xëcc jëme ci seen wàll mu jaral leen xeexoo ba ay deret di ca tuuru ay der di ca xottiku ay adal di ca sànku yooyu fitna yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjuroon na ko ne dana xew ci mujjug jamono ca bokk na ci fitna yi nga xam ne moo gën a mën a lore gën a bari ci jamono mooy fitnay jigéen yonente bi nee na woon na ngeen wattandiku jigéen ndax kat bani israil la leen alagoon mooy jigéen wax na yéen góor ñi de bàyyee lu ma leen fitna ju leen gën a mën a lor ci fitnay jigéen ku seetlu nag jamono ci jigéen ñi ak seenu col ak seeni maanaa génn ci lu ñor ak lu ñorul ak seenu jaxasoo ci góor ñi ci béréb yépp ci marché yi ci xew-xewu diine yeeg yépp sax dañuy jaxasoo ci anam goo xam ne mucc ci seen fitna dana jafe ci jàngukaay yi ci liggéeyukaay yi ci lépp muy loo xam ne lu mën a jeqi fitna la lu mën a indi mbon gu nekk la li genn waay waxoon ne soo xippee say bët danga ko teg ci lu xaraam ca soo gëmmee say bët tamit danga dal ci lu lolook mun kon ana mucc nan la kon bokk na ci fitna yi gën a lor yi gën a mën a lor ci jamono fitna yi jigéen yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañu ko waaye tamit euh, watandikuloo woon nañu ko lool fitna yi bànneex topp sa bànneex moo xam te la ngay lekk la wala la ngay sol wala la ngay xool fitna tamit ay lënt lënt yoo xam ne day xew euh, ñu di ko tasaare nga xam ne jullit bi nga xam ne xàmmewul du xam sax ana fan lay teg ab tànkam loolu waral kuréel yu bari yi loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wala lañ xel nee woon da ngeen babat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñetti ak ñett waaye kuréel yooyu li bari bari yépp sawar lañ jëm kuréel rek moo ci dem aljana moo ciy mucc mooy bi nga xamante ne bi dafa mooy ci alquran ak sunna li nga xam ne moom laa moom laa jàpp maag samay saxaaba yal nañu yàlla boole ci kuréel boobu waaye bokk na ci fitna yi tamit bokk yi fitnay alal àgg na ci xoolu nit ñi foo xam ne doy na waar lool ba ci la ñuy natt ñu bare bare ci la ñuy natt ak mbaax ci la ñuy natt nit ki ci lépp loo xamante ne bi moom lañ koy takkal ci wàllu garab wala mu lañ koy yéegal ci wàllu daraja lu baree bari alal lañ koy xool mu doon fitna lool ba mu mel na ku ko amat bokkoo ci nit ñi loolu jur fitna ba lu ëpp ci nit ñi di ko sàkku ci anam goo xamante ni bokkut ak gi leen sharia waaye suñ ko amee tamit di ko def ci anam goo xam ne bokkut ak ga leen sariya digal kon alal bokk na ci fitna yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne na bokk na ci fitna gën a rëy sama xeet yi ma fitna yi alal borom bi nee na innama amwalukum wa awlaadukum fitna alal fitna la ak njaboot tamit fitna la waaye bokk na ci fitna yi tamit li nga xam ne mooy fitnatul masiixi dajjal yal na yàlla musal ñu ci nga xam ne moom tamit dana ñëw ci mujj jamono mbokk yi fitna yi lu baree bari la loo xam ne ku ko xool setantal ko da gis na yaa ngi dund ci ay jafe-jafe yoo xamante bi def la seq ci wàllu bu ne waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon mi ñu jàngal de ba mu ñu bàyyiloo xel fitna yooyu Euh, tegal nañu ay saafara yoo xam ne képp koo xamante ni bi jël nga ko danga nga mën a mucc ci fitna yooyu bokk na ca ba ca jëkk mooy ngëm yàlla gu wér ci sa xol ak sax ci jëf ju baax joo xamante ne bi danga koy sellal ngir jëmi sa borom ngëm dafa doon loo xam ne dara dara ci ay caaxaan wala ay fitna mënta jàmmaar lak moom mooy kattan gi nga xam ne dafa tëbboo ci kattanu borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne mooy su quwatil matin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ngëm gu ànd ak jëf ju baax ju sell de bokk na ci yi nga xam ne dana musal nit ci fitna jamono yu bari yi yàlla nañ yàlla war fa gën ñu pas-pas boobu ak ngëm googu dafa wax jëf gëm ak jëf ju baax ndax ci alquran da fekk lu ëpp juróom fukki aaya lépp borom bi tabaraka wa taala di ci lënkale eh, jëf maanaam ngëm ak jëf ju baax illa man taaba wa kon jëf ju baax du mën a jariñ lu dul ak ngëm waaye tamit ngëm su fekkee ne jurul jëf ju baax du am njariñ kon ngëm gu wér seen mooy indil nit ki ak texe moo koy indil ak mucc ci fitna yi àddina moo koy tamit garanté ba lu baree bari lu ca du ca tàbbi borom bi tabaraka wa taala bi bi muy wax ñi nga xam ne ñoo am kóolute nga xam ne ñoo mucc dafa wax ne alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika ñooñu am pas-pas boobu ñoom ñooy mucc tey ñoo ñooy mucc ëllëg ba bu ñu faatoo dugg seeni bàmmeel borom bi tabaraka wa taala daf leen di musal malaaka yeneen di laaj ci seen bàmmeel di laaj ana kan mooy sa borom kan mooy sa yonente lan mooy sa téere ñooñu bu baa bu boobaa mooy ñi nga xam ne yusabbitu allahu alladina amanu bil qawli sabiti fi lxayaati dunia da leen di saxal ci ngëm yàlla saxal leen ci jëf ju baax fi àddina waaye tamit garantel leen ñu mucc ci fitna yi nga xamante ne bi dafay réerale saxal lañ seenu lay ca mooy laaju giñ leen di laaj ci ñaari bàmmeel yal nañu yàlla boole ci ñooñu ñaareel ba ci yi nga xam ne dana musale mbokk yi ci fitna mooy at ragal yàlla mooy taqoo ndigali borom bi di wattandiku ay tereem yàlla nee na ku def loolu man maa lay musal ci gépp xat-xat goo nekk man maa lay xettali ci yépp jafe-jafe yoo nekk man maa lay wërsëgal ci anam goo xam ne doo ko foog sax kon ku yàlla euh, garanteel musal la ci xeeti xat-xat yi ak jafe-jafe yi kooku dana mucc ca bokk na ci la koy may nit ki nag mooy mu sax ci ndigali boroomam wattandiku ay tereemam muy at taqwa ñetteel ba ci musale ci fitna mooy tudd yàlla lu bari saw làmmiñ waxtu wu nekk mu toy xipp di tudd sa boroom nga xam ne du fàddu sam xel benn yoon boroom bi nee na ngeen may fàttaliku ma fàttaliku leen abdullah ibnu abbas ci firi aaya boobu dafa wax ne borom bi daf ne na ngeen may fàttaliku ci di ma topp ma leen di fàttaliku ci di ma dim di leen dimbale Saïd ibnu Jubayr ne nee na ngeen koy fàttaliku ci di ko topp mu leen di fàttaliku ci di leen jéggal ñii ne mooy na ngeen koy fàttaliku ci xéewal yi mu leen defal na ngeen koy fàttaliku waxtu bu ngeen ko talee nekk ci jàmm amul wér ba noppi am koom kon waxtu bu ngeen wéradee nekk ci ay jafe-jafe su ngeen ne ko anaga mu ne leen maa ngi nii wolof day wax na jote day dëkk joote kon ku joteeg sa boroom waxtu wa ngay man waxtu wa ngay tal saa yoo jootee soo nee sama borom anaga mu ne la maa ngi nii kon bokk na ci li nga xam ne mooy musal nit ci fitna yu bari mooy fàttaliku boroom bi di ko tudd lu baree bari euh, loolu ci xisab yonente yàlla yoonus bi nga xam ne dañ dafa génnoon ab dëkkam dam ci ak tefesu dex fekk fa ak gaal mu dugg ca ñu dem ba ca biig waa gaal ga wàccee mu dugg ci ndox mi aw jën wann ko mu nekk ca biir jën wa xelam dañul ci boroomam di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al zalimin boroom bi tabaraka wa taala ci lëndamug gudd gi lëndamug ndox mi lëndamug biirub jën wi dégg na kàddoom googu da ko daal di xettali waaye da caa teg lu am solo ne bépp jullit boo xamante ni bii tamit euh, loolu dal na la soo defee nam defoon ma defar la la ma ko defoon borom bi day wax ne ana maa abdi ma dakarani wa taxarrakat bi shafata man maa ngi ànd ak sama jaam fu mu mën a toll di ko dimbale su fekkee ne mi ngi may tudd ay tuñ ay tuñam di yënguti ngir man kon bokk na ci lii musale ci fitna di faral di tudd borom bi tabaraka wa taala di ko fàttaliku bokk na ci yi musale ci fitna mbokk yi mooy tuub ak a jéggulu sa borom waxtu mu nekk ngay nangu sag lot di nangu sag tooñ di nangu sag doye ci sa kanamu borom di ko jéggulu waxtu wu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku taqoon ak jéggulu boroomam boroomam dana ko defal ak wuññi ko ci lépp bépp njàqare waaye dana ko génne ci gépp xat-xat te dana ko wërsëgal ci anam goo xam ne du ko foog kon tuub ak lu borom bi tabaraka wa taala bokk na ci liy musale ci fitna waaye tamit juróomeel ba ci nga xam ne dana musale ci fitna mooy ñaan borom bi azza di ko ñaan mu musal la ndax jullit bi yi ko séq di ko yà yàqal dafa bari ba kanam a ngi fii di ko woo ci duñ ko tere seytaane ngi fii addinaa ngi fii bannee xam ngi fii moom mu nekk ci seen bii nekk jaam bu doyadi kon la koy may kattan mooy muy ñaan boroomam azza wa jalla waxtu wu nekk ñaanuk yonente yàlla yunus googu laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yonente bi nee na amul benn jullit boo xam ne ñaan na ko boroomam ci lenn ndaree boroomam wuyu kon ñaan ak a toroxlu ci sa kanam boroom bokk na ci mbokk yi li nga xam ne dana musale ci fitna juróomeel ba ci musale ci fitna mooy muslu ci yàlla ak taawus mooy mboolem xeeti fitna yi lum ci mën a doon euh, xamal na yow ngir nga mucc ca da dellu ci boroom bi nga xamante ne bii ku lot ñëw doole soo delloo ci moom moo lay musal yonent bi neena na woon na ci yàlla ci fitna yi yi feeñ ak yi nëbb wax na kenn ci yéen su jullee bay taaya na ñaan ñaan gii ne allahumma inni audu bika min adabi jahannam yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sawaraw jahannam maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum bàmmeel maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitna yi dee ak dund maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitna yi masiixu dajjal kon ñaan googu tamit bokk na ci li nga xam ne ngir nga mucc ci fitna waxtu woo jullee ba taaya ba war ko ba war a sëlmal nga ñaan ñaan googu allahumma inni audu bika min adabi jahannam wa min adabi alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasixi dajjal borom bi tabaraka wa taala ku musal ci ñeent yooyu kooku mucc nga ci wépp ay yal nañ ci yàlla musal na juróom benn juróom-ñaareel ba ci musal ci fitna mooy wakiilu ci yàlla sukkandiku ci yàlla xam na moom rek mooy ki nga xam ne du daanu du daay koo wéeru ku dul borom bi azza wa jalla bis dana ñëw mu daay bis dina ñëw mu daanu fa tawakkal ala alxajji alladi la yamuut kon na nga wéeru ci kii dund nga xam ne moom du faatu mukk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax ne xasbuna allahu wa nicma alwakil ca xareb uxud ba leen fa defee lañ leen def ca euh, waa Quraysh suñ yónnee waat ay gaa yoo xam ne dañuy dañoo ñëw di leen tëkk di wax ne ñu ngi ñëwaat borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xasbuna allahu wa bi azza wa jalla tagg ko mook jullit ñi wax ne ñoom dañooy ñi nga xam ne su leen mbir gaaree dañuy wax ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil juróom ñetteel ba ci musle ci fitna mooy al amru bil maaruf wa nahyu an il munkar mooy kenn ku nekk nag nga am responsabilité te la nga yilif ci ak nga leen di watandikuloo fitna nga leen di digal lu baax di leen tere lu mën a gaa ci jamono nga dajale leen wax leen ca la ca yàlla wax akub yonenteem loolu dana tax mucc ci fitna borom bi azza wa jalla ci bani israil ba muy wax ña nga xam ne daf leen a alak ngir seenu tooñ ngir fàtte gu ñu fàtte li leen yàlla waxoon nee na ba suñ mbugal ma ñëwee da ña nga xam ne ñoom ñoo doon tere ak a digle ñooñu musal nañu leen fa lamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladina yanhawna ani suu juróom-ñeenteel la mbokk yi kii yii la ci fitna mooy nag nga jéem a tënku sa bopp ci téerab yàlla bi ak sunnatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax alxuraan mooy ak njub foo sàkku ak njub fu dul foofa doo ko fa am alxuraan mooy ak leer foo sàkku ak leer fu dul alxuraan doo ko fa am alxuraan mooy barke foo sàkku barke fu dul alxuraan doo ko fa am alxuraan mooy yërmane foo sàkku yërmane fu dul ci alxuraan doo ko fa am alxuraan mooy shifa mooy saafara foo ko sàkku fu dul ci moom doo ko am yonent bi ne yàlla da koo def mu mel ne ak buum mu sëmbërtal ko ci yéen téye benn cat li sëmbërtal cat li ci yéen ne jàpp leen ci si ngeen ci jàppee du ngeen sànk du ngeen yër bu abadan wa man ittabaa hudaya fala yadullu wala yashqa abdullah ibnu abbas borom bi tabaraka wa taala ci jàng alxuraan di ko jëfe ne du sànku ci àddina du texe ci àllaaxira yéen yàlla boole ci loolu kon yooyu mbokk yi ay tomb la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junj nañu ko jàngal nañu ko ci ne jamono bu bëree ay fitna bokk na ci yi nga xam ne moo leen ci musal yal nañ yàlla musal ci fitnay jamono yi feeñ yi ak yu nëbb yi yal yàlla def ñu ay jaam ñu ma xëddal ñu jaamu ko te mu nangu leen seenu jaamu